Madame le ministre du, Commerce, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le sous préfet Monsieur le président du conseil départemental, chers collègues maires, chers participants. Monsieur le ministre, je me réjouis de la tenue de cet atelier et du Santiago Bouba, du ñaari mbir rek préoccupations. sama préoccupation les incohérences territoriales et président de la république qui réforme 2020 bi mu waxone le moment venu nañ waxtaan ak vos services notamment agence nationale de l'aménagement du territoire ngir ñu corriger ces incohérences alors du moment où am un plan spécial d'aménagement bu Kër ça donc japp naa ne tey fii lañ ko war a waxee beneen bi ci topp mooy mbiri taxe parce que ku ne xam na ni avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation chaque collectivité territoriale yaay gérer sa développement wu bopp li nga xamante ni mooy domaine de compétence yi la état bi dénk leneen li nga xamante ni moom la ñuy gérer au niveau stratégique je pense que sànq xañ na je un peu en retard ces services. wax nañ ko loolu ñu leen waroo leen ci xaar maire yi maire yi ñu leen ci xaar lépp li état war a def pour assurer développement wu Kër Massar ngalla na ko état def li collectivité territoriale yi war a def nañ ko def mais ku ne xam na problème fondamental bu collectivité territoriale mooy ay ressources financières vous êtes maire et xam nga bu baax a baax li nga xamante ni moom lay wax ñëw ci question wu incohérence territoriale ci six communes yi nga xamanteni ñoo département de Kermassar. commune yëmbul Sud mo ci gëna officiellement et dans le document de l'acte 3 de la décentralisation le président de la République voulait des communes viables compétitives et porteurs de développement même si Yembel Sud est compétitive, elle ne peut pas être porte de développement. Et au même moment, Bodjé Talibi, Dokuti sont nos voisins, Yembel Nord, ils sont à 10 km. Et qui parle de Yembel bëgguma sànni xeer sama xaritu yëmbal Nord, yi Nord, Yembel. Ben, Yembel 96 lañ ko si mais su ñuy wax Yembel, Yembel sud da tax parce que fallait la jumaa Seydina Limaamu ji fa la grand sëriñaa gi nekk fa la chefferie bi nek alors donc jàpp naa ni sama mbok yembal nori extension rek lañ sama xarit Daouda ndjay sama xarit Daouda ndjay daan na ma tooñ naan ma yëmbal sud benn quartier la ci yembal ma koy accepte mais jàpp ni incohérence yoy war nañ ko mën a corriger et suma ma la ko waxee xam fi mako tek monsieur le ministre vous êtes très fort machallah parce que quand il s'agit de devoir régler le problème de marché bu bees donc on a réglé monsieur le ministre quand il s'agit de devoir prendre Kounoun, rattaché ko ci Sangalkam avec un arguments qui nous convaincre mais quand il s'agit aussi de devoir nous reporter jusqu'après la réforme de 2020 vous avez donné au président de la République des arguments qui nous ont convaincus alors monsieur le ministre aidez-nous à régler les incohérences territoriales cette fois-ci. Parce que vous le pouvez. Il faut le faire. Alors, Beren Birbimegno, mouille sur les fonds affectés. Heureusement, mon frère Amoudou est là, ministre de l'économie du plan. La femme l'union des taxes sur les ordures ménagères. Le système pollueur-payeur, bidoc au niveau international. Ngal, monsieur le ministre des collectivités territoriales, doxal au niveau local. Nous, nous, mbeubes sunu département Dakar di takal di ko sànni Pikine di takal di ko sànni et taxi ñu tuddé taxi ordure ménagère suñ ko jëlé état bi sédé lañu ko c'est pas normal le système pollueur payeur là il faut que messieurs les ministres ngén réfléchir ci pour que Dakar bu takalé ñeu sànnil ñu ko li nga xamanteni moy taxe sur les ordures ménagères ñu mënn ko bayal ma ngi leen di gërëm bu baax